mën na baax. Mhm. mais ñii acteurs yi xëy na ñoo doxul système. Mhm. mais maanaam sur le plan religieux le prophète si depuis quand yow prof bi kañ la ñaati si xarlu mais ba léegi ci moom mooy suñu référence. Mhm. est-ce qu'on a dafa yàgg xaw ma taw donc il faut changer non tu vois des musulmans yoo xam ne conformément à l'orthodoxie musulmane dañ koy doxal am ñoo xam dañuy revendiquer seen jullit mais leneen la ñuy def lu bokk donc débat bi du foofu le programme Taxawu Sénégal de Khalifa Sall transcende toutes les générations man je dirais même que Senghor tout ce qu'il n'a tout ce qu'il a fait n'est pas mauvais am na lu mu def lu baax am na lu mu def lu ñu war améliorer Abdou Diouf bu mu ñëwee am na lu mu def lu baax am lu ñu war a améliorer mm-hmm. Abdoulaye Wade bu mu ñëwee am na lu mu def lu baax am na lu ñu war a améliorer Macky Sall mii am na lu mu def am na lu baax am na lu ñu war a améliorer. absolument ñun ci loolu la ñu jàngee. c'est-à-dire dañuy jàngee ci ñooñu jàngee ci askan wi pour xool fan moo am rëq-rëq yi. Mm-hmm. ñu jubbanti ko ba affaire bi dox. d'accord d'accord Cheikh mën nga mën nga mën nga daaneel. waaw foofu laa doon waxee rek boobu presque daanee woon naa quoi donc dama dama doon wax rek euh, euh, les promesses c'est bien. Mm-hmm. mais ñun léegi moom wax dëgg yàlla politicien bu ñu promettre dañ lay xaar. dans la réalisation de ces promesses là. am na solo la mayti temps. parce que tamit bon <laughs> malheureusement oui, malheureusement bon. mais aussi tamit mais koo jox bopp war oui mais mais mais euh, dootuñu dootuñu leen may temps parce que dañu leen di may temps on a vu avec euh, le président Macky may nañ ko temps mu doxal doxal doxal au finish. y a des aspects yoo nga xamante ni sénégalais dañ ko doon xaar. des priorités même yoo xam ne sénégalais dañ doon xaar foofu noonu yegguñu fa. nous avait promis l'autosuffisance en riz. on est toujours. Euh, oui mais c'était pense pas qu'on l'ait atteint à ce jour. ñu ngi doon jaay leneen ak leneen. comprendre la bonne gouvernance la gouvernance sobre et vertueuse l'indépendance de la justice il pas mal de promesses quand même nga xamante ni président Macky Sall defoon nañu ko ñun ñu ngi ko doon xaar donc président Macky Sall a un bilan immatériel bi nga xamante ni ñun ñu ngi ko doon xaar président Macky Sall doxal ko président Macky Sall moo ñu jaayoon ne l'emploi des jeunes ça va devenir une réalité tey malheureusement les faits prouvent que cette jeunesse là ne gis boppam si doxini réew mi mhm. malheureusement aujourd'hui on se rend compte que góorgóorlu bon euh, sonn na góor góorgóorlu euh, lottu na def na lu mu mën mais aujourd'hui il parvient pas à joindre à mais góorgóorlu war nañ ko jàppale et puis jàppale góorgóorlu mooy réaliser les promesses yi nga xam ne et aussi savoir la part des choses maanaam priorité moo am solo defar tey bu ñu indilee TGV fii nii euh, bon nu mu tudd Dakar wala wala fii si réew mi c'est bien mhm. mais est-ce que ñun suñu priorité loolu la est-ce que tey décalaatoon le train est-ce que du doon doontoon ngëneel par exemple man j'ai fait Tambacounda mhm. mais il fut un temps boo demoon gare euh, Tambacounda c'était une euh, activité économique bi fa amoon c'était extraordinaire da ngay gis nit ñi ñii di jaay gerte ñii di jaay li ñii di jaay li heure bu train bi ñëw kii xam passager yi wàcc et cetera train bi doon dem ba Mali mhm. mais aujourd'hui man loolu moom ma gën a waxuma ne waxuma ne terre bi baaxul parce que <laughs> aussi euh, je, je pense que c'est une bonne chose mhm. réalisation bi mais man su ma tegaloon terre tegal ma train man train bi laay jël parce que train bi tamit li muy traversé comme monsieur Guèye wax na ko nee seen seen programme la nekk maa yaakamte lire seen programme ba am yaakaar vraiment loolu dinañ dinañ ko jëfe bu ñu faloo merci merci euh, sànq wax nga ci wàllum ci wàllum justice bëgg bëgg naa ci ñu wax euh, nañ li nga xamante monsieur le maire moo xew moo xew euh, moo xew Ziguinchor ni nga xamante noonu la juge Sabassy àttee jox euh, avocat yi Ousmane Sonko dëgg tey euh, honorable député Ayib Daffé taaña ñaal dem fi nga xamante ne mooy DG waaye la mu doon sàkku amu ko à la sax ça quand même fait tollee ci li nga xamante ne prétexte bi nga xam ne moom ko servir mooy liggéeyuñu yen ban gis-gis ngeen am par rapport a ça d'abord man nag dama am habitude loo nga xam ne sama xam-xam màcc parce que bëggumay wax lu ma xam mhm. mais dégg naa comme ñëpp euh, jugement bi ñu rendre à Ziguinchor et que je mhm. et yàgg nañ ko wax ñun taxawu Sénégal Khalifa Sall moo tax dama wax ni dañu war a am lecture politique Khalifa Sall bu mu demee ci dialogue mhm. mais bokk na ci poñ yu ma wax lii dafa nañu def élection yoo xam ne ñëppay bokk et en parlant de cette décision de justice nga may ma rek ma nuyu suma xarit suma rakk Ousmane Sonko man suma rakk bopp la mhm. et ku ma jox cër la aussi mhm. ma jox ko cër bi mu toll aussi donc euh, maa ngi bokk ak moom jafe-jafe yi muy dund tey ji tey ñaan yàlla yàlla na ko yàlla teggil nattu amiin mais damay dégg sëriñ bu mag bu baax di wax yàlla xarit ba li musibaal nattu donc mandarga jullit la mhm. mais il faut vivre natt bi avec beaucoup de dignité beaucoup de courage bu fekkee ne juge bi jël na décision nañ ko réhabiliter mhm. ki ci liste yi la war mooy ñu jëfe mhm. est-ce que maintenant dañu xool décision cour de cassation xam lu mu demee pour mënita ñu xam ni procédure bi jaar na je ne sais pas moo tax bëgguma dugg ci débat boo nga xam selon les juristes quand même voilà la décision du juge euh, bon, par exemple, la décision de, de, de, la Cour suprême, n'est-ce pas, euh, pas suspensive. Par exemple, tey maanaam décision bi nga xam ne génnee na. fële fële fële Ziguinchor. Euh, voilà dañ ko war a appliquer. même su nekkee ni dañuy dem au niveau de la Cour suprême. selon les juristes en tout cas yi ñu woo si plateau. mais mais tey li ñu seetlu mooy. bi fa ayib dafay demee moom nga xam mooy maa ngi naan Ousmane Sonko. joxuñu ko fiche parrainage parce que dañoo wax ne liggéeyu mais Cheikh. non wax nañu non en fait dañoo ne tey du recevoir. kenn recevoir kenn la ñuy wax. mooy mooy liggéeyu liggéey nañu mais du ñu recevoir. mais entre loolu loolu loolu c'est ce qui les occupe parce que tey soo déggee. Ah, donc il faut les interpeller qu'ils disent quelles sont les raisons. moom laaj na moom lañ ko euh, defee bi mu laajee dañ ko ne tey. liggéey liggéeyu liggéeyu du ñu recevoir du ñu recevoir kenn. ne moom la askanu ñi nga xamante ni moom ñoom la ñu dénk yenn bànqaas aussi foofu gën a leeral ci li nga xam ne noonu moo tax si njëlbeen ma wax la suñu programme. dafa am pàcc bu rëy. boo xam dañ ko jagleel justice. maa ngi dégg. Cheikh Cheikh sama turandoo. Mhm. muy wax sànq yàkkamti naa lire seen programme. xaw naa ko tontu ni ko yow yaay suñu programme. <laughs> parce que xalaat yu rafet yi nga xam noonu noonu noonu la ñuy tegee programme. Mhm. c'est-à-dire coproduction. Mhm. dañuy jànge ci nit dañuy jëlee ci nit parce que nit ñi ñoo la gën a xam seen problème ak nan la ñuy résoudre seen problème loolu la ñuy jël ak borom ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci tëgg programme ñu tëgg programme donc programme bu génne kenn ku nekk da nga ci gis sa bopp yàlla na yàlla def bu ñu gañee rek ñu jëfe ko loolu mooy am solo surtout surtout te am naa ci yàqin ndax Khalifa Sall mën naa wax ni maa ngi bëgg yàgg ak moom nag te xam naa ko ci dëggu mm-hmm. ak générosité man xam nga bi may nekk maire de Dakar nekk premier adjoint Khalifa Sall mm-hmm. nekkuma woon parti socialiste boobu kenn dàqu ñu woon LD mm-hmm. Khalifa Sall kenn dàqu ko woon parti socialiste mais pourtant man la jël def ma premier adjoint ñu ànd di liggéey yamu ci am na ñu nekkoon ci yeneen parti mu jox leen ay responsabilité mhm. donc kooku nit kuy yaatal bu fekkee nag pendant ce temps dangay gis ay nit ñuy riisu ak di kii dafa may jaaxal dama ni mais kii benn forme politique la Khalifa Sall ñi ko gënoon di sànni xeer nekkoon ci yeneen parti sax daf leen jëloon uuf leen nit ñi sama njaboot ba may nekk ville de Dakar am na ñu ci bari ay bu ñu nekkoon maire yàlla Khalifa Sall mais bu mu nekkee ci nattu bi ana ñan ñoo fa des tey ak moom naa leen limal fii ba suba du ma fi jóg ñëpp gàddaay mi ñu mais ñëpp te ñu ngi seen xel ngi fi dellu soo léegi li ko dise c'est-à-dire nit da am ngëm-ngëm nit da am ngëm nit da ngay am aussi euh, am na loo xam daal ci nit la mhm. bu génnee ci nit rek dara des moo tax man gëm naa ni taxawu Sénégal am na véritablement capacité aujourd'hui gagner ces élections et diriger mais quand même vite ci ci côté boobu ci justice bi ngeen réforme bi tey ngeen jàpp ne moo war indi quand même indépendance justice boo xamante ne tey benn magistrat lu du décider ñu ne diw nga faral diw nga àndal xam nga yow yaa ngi ma koy laaj yaa ma gën a xam lañ ci war a def chef mi ngi koy laaj moo ma gën a xam lañ cee def loolu la ñu ca war a def nag la ñuy ànd defe ko parce que loolu la ñëpp xam nañu ni justice na mu waree doxe dëgg dëgg doxewu ndox boo demee ba ci benn mbir dangay am kumba mu am ndey ak kumba mu amul ndey justice amatu wala ku mën sa morom duma loolu laa fi gis yor sab yat ku la neex nga ku la neex nga faagagu mm-hmm. mais xëy li wala fi di wax naan gën a métti amul gën a bees rek fi lii dal suma rek Ousmane Sonko mais. en dé oui ci jamono yu métti nit ñi amoon ci moom yaakaar la mu sàmmi mu soppi xar kanamu Ndakaaru ba askan yëpp ni kii ndagam nii la a Ndakaaru ku ko jox réew mi bi yëpp ku nekk bëgg ñëw Khalifa Sall ñëw ci yow ba nu jox ko ay ndomb ak ay raaya yu bare bari au niveau international donc ku mel boo ko amee ci réew da koy xam da koy fonk da nga koy déglu da koy te loolu kooku la ñuy wax mhm. yàlla wala fi dañ naan da nga jël sa turandoo juróom-ñaari jikko xalifa Ababacar Sall mhm. waxuma jël na juróom-ñaari bukk jikko ci sëñ Ababacar Sidé mhm. waaye am na jikko yu bari yu mu jël ci moom ci màndu ci dal ci woyof ci labir ci xam-xam ci dimbalu doomu aadama ci téye làmmiñam ci xam safaan doppi merci donc xalifa nit ñi am nañ ci yow yaakaar bi